jërëjëf mbokk mi ala kulli xaalin euh, amaa lu aju ci nag gént di jàng faatiha euh, gént di jàng faatiha nag dafa baax waaye balaa ñoo jàll nañu leeral suratul faatiha euh, suratul faatiha nag saar la bu am solo nekk ci boppu kaamil boo dem dinga ko fa fekk moom nag ak ubbeeku da ciy dox bu baax moo tax ñi nga xam dañuy faral di jàmbat di yaakaar mi tas képp koo xam da nga am yaakaar di yaakaar mi tas ñu ngi lay tegtal sekkar bu am solo ji suratul fatiha saa boo jàngee fatiha ba àgg ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in danga koy baamu soixante-dix fois nga kon ne fatiha bi ala kulli haal loolu moom képp ko am sa yaakaar day tas lu bari boo ko dee def yàlla dina yombal li ngay yaakaar euh, beneen bi ci toppaat mooy gént di jàng sootul fatiha ubbeeku la bi ci desaat tamit yokkute la bi ci de desaat aajo ju faju la ku mu fekk ci xat-xat nga gént jàng sootul faatiha ba mu àgg yëgal ni boo doon looy ñaan yàlla dina ko nangu bu doon looy sàkku tamit mu jafe la lool yëgal ne yàlla suñu borom danal ko jàppandal ba mu nekk lu gën ci yow kon sootul faatiha njariñ la xéewal la yokkute la te même aajo ju faju sootul faatiha gaaw na ci lool kon alaakulli xaalin gént di jàng faatiha lu ci ëpp yiw lay tegtal ak yokkute amaa ñi nga xam dañu aajo numéro yi mën nañ koo jël ñi nga xam dañu bëgg ku leen firil gént defal leen seet wala listixaar eh, bu dee firi yi nag ni ngeen xamee ne listixaar ak seet dafa am fay noonu la firi yi tamit amee fay ndax parce ñu bëri dañuy envoyé message yu baree bari kon nañ ci bàyyi xel baax kon numéro 78 443